man geej la mas a def sama aduna geej dong ngay sama métier musuma def beneen métier. mosuma menuisier mosuma euh, maçon musuma def dara geej rek la xam. geej rek kese. mais mais geew kan mo don capitaine bi. non ay capitaine ñu tamit ko ci bir geew bi ah oui. bu ah. bu bañee nag. su bañee nag bu bañee capitaine non non mënu ko bañ lool mënu ko bañ. déedéet mënu ko bañ. da ya ne benn kàlla rek. capitaine capitaine. non nangok bañ ak yëpp maa koy capitaine ba waaw bëgguma mu ñëw rek nangu nii nii nii nii na bañ bëgg mu jëm bañ bañ na bañ tuuti bu bañee loo koy teg ma may doon capitaine su bañee loo koy teg ah su bañee du yomb si moom de mais hmm? Babacar moom gaal gi fu mu ko mas a ser fu nekk ñàpp na jën yu bëri yóbbu caaro yi te bii paam nguur la ko ser bu ko fi day kas bu demee waxal ma ko bu ko fi seree gaal gi kas waaw du jàpp kas mooy lan gaal gaal gu tëj <laughs> gaal gu jàpp dara wala day dara moom xam na ko ah xam na la xam nga gal boko séré kaba gi moy koru ok ah mais bu dee nag fii la boo ko fi séré bu ngelaw li ko kaba gi day laxaso mais mu doon man li li li da am lu mu wax légui nee moy capitaine non moy capitaine u géew ba ah. ndax nee na moo ko gën a miin géew kooku capitaine ci fep rek waw yaay capitaine am ci fep fep même sax né nga ma yaa gëna min a gog mu dëkk bu bax lutax nga wax est ce que li ma xam caaro dama ma min caaro pa ba caaro yi ma la caaro bopp du max mbargal lamsar waaw du max max ñu dund nu waaw waaw yalla na gudd fan ña doon nekk mbapatu lamsar ñu ngi dund waaw waaw té na mbapatu max plus de 3 mois ku gis mbeur mo fa daan waaw mbeur mo xamni rek né ngeen mas na ma daan mbapatu mbapatu ciaral mhm. gennal nga ni sa way tel personne dan na la mbapatu max max ak may sédane dem na ba dernier weekend bi mu ñëw daf ma ni bo ngembo ñi duñu mu de defal ma décoration je crois ben blouson ak yakana naa saako ceeb ne ma bul bëri. bul bëri mooy dernier bi ma fa ñu ma fa mujjee dem. fa mujjee dem képp fa gis mbeur ma fa daan bu la neexee nga dem site bu la neex ngay len tel mbeur daan nako ben mbeur du wax daan nako kon xale bi manam zone bi mu dëkk dang ko maîtriser. bu baax. caare sama caare sama secteur lay tamit. way na xale bi mu neex maîtriser. man de foofu laay des non manam yang si toujours yang si insister. wa ndax dina neex. parce que dama ko top euh, Bombardier. mais sa yaa ma xam est-ce que yaa ma gën a xam yow. ah man de reporté ko ci laa yem. waaw kay xam xam naa ko bu baax non dama leen léegi adduna bi ni muy doxee nit ki da nga koy xam bu baax a baax a baax li nga may wax ni yëpp amaa ma koy jël étudié naa ko xam naa ko. xam ngay forum ak faiblesse am. yàgg na. lan mooy forum. waaye dina dinaa jëm si dinaa jëm si ci. ñi dem si guerre di la wax bal bi fii laa la koy dóor. mais Babacar comme ni mu ko euh, question ñu ñëw comme ni mu waxee ne moom homme de défi la mm-hmm. rëg-rëg aussi tamit noonu la mel parce que yaakaar naa ne bi muy nekk caaro yi ñoom Xaadim Njaay nekk ak ay magam mm-hmm. fépp foo xam ne mas nañ faa échec rëg-rëg bu ñëwee day jàll mm-hmm. te lépp loo xamante bi ni caaro yi mas nañ koo ñàkk depuis ci temps mu ñëw ci làmb 2013 ba léegi mi ngi koy offrir waa caaro yi est-ce que tàkkusaan boobu tamit défi boobu du ko relever sa sa kanam seen diggante waaw loolu défi la si kaw défi rek man aussi défi bi ma am mooy euh, tey génération bi ma jàpp si ñaar ba ñett rek noggatu leen <laughs> bàyyi leen ak làmb ji dem nekk si leneen. jàpp nga ñetti booy de noonu ñu gën a ndawaat laax ñaar ñi su ma noggatoo kii yëpp rek desaat na keneen ku ma. am na beneen booy bu des. nee na dama koy codé xaaral ba mu pare. <laughs> <laughs> wala dara ah. hmm. bi maturité bi ak naqaree daan bi. Hmm. non xam nga non nit dangay ngay da ngay da toll si ase boo xamante ni bu dee xale nga fugure ngay demee hmm. mais plus ngay màgg.